mbokki julli nii mbokki taalibe yi ñun waa daayira Tazawudu Subaan ci njiital sëriñ kër Diop ñooy am mbegte di leen yëgal ziar bu mag bi nga xam ni dañ koy amal at mu nekk ci kanamu ki fi nekkal sëñ Tuubaa ren nag ñu jàpp ko samedi 8 avril ak dimanche 9 2017 ñu koy amale euh, Njaareem tuuba ak Mbàkke Kajoor Euh, ziar bobu nak ñu fassiyene jëfé ndigal lo xamni señ ko digal ci fu ñu di jël suñu àddiya diko jébal manam suñu sunub sëriñ ko défé lolu non lañ ko fassiyene défé ren muy ñaar fukel yoon bi ak ñaar ñu amalé ci kanamu sëriñ Sidil muhtar Mbàkke yàlla na fi yag lolu tam ànd lolu nak lañ am yene ñëw leeral leen ni ziar bi di tëddee dañuy jël kàddu gi jox ko jëwriñ mbooloo mi sëriñ Boubacar Diop mu woo képp koo xam ne membre nga te bokk ci biir Tazawudu Subaan su noppee ñu jël kàddu gi jox ko sëriñ Aliou ngeen xasaayit moom it mu leeral ñu maanaam programme ziar bi bu noppee suñu Ousmane Diop tëj ko ci njàngum xasida kon sëriñ Boubacar bisimilah kàddu gaa ngi noonu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen balu àq di jiital ci nuyo bi sëriñ di Muxtaar Mbàkke di di ko ñaanal ci barke borom Tuubaa Xaadimu Rasuul yàlla na ko fi suñu borom yàggal lool te mu ànd ku wér ba lépp lu mu yéene liggéey sëriñ bi mu def ko ni mu ko bëggee ni ko sëñ Ousmane waxee rek ñi ngi woo mbollem ku bok tasawul shuban nga nek ci bir rew mi ak nga nek bitim rew muy gor di jigen di mag di ndaw ñepp ma si ñew ci siar bi ci date bi nga xam lañ wax legi ñuy fatali nak siar bi ren fiñ koy tambalé ba fa ñuy ñaane lépp dañ ko fas andak ànd Cheikh Thioro Mbacke ñi ngi koy ñaanalit li ñi ñaanal kilifaam gi muy sëñ Sidi Muxtaar yalla nako fi yalla yagal lol te ma ko wër ñi ngi fatali ni képp koo xam da ngaa bokk tasawdu subaan sa dem ci siyaar bi mënta ñàkk jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barke borom Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara su ko defee ñuy fas yéene tàbbi ci leeral ziyaar bi nga xamante ni moom lañ dëgmal ni nga xamante ni noonu la war a tëddee su ko defee. ñu war ko amal ci ñaari fan muy samd bi la 8 ak dimaas la 9 bëgg nañ suñ fi bàyyikoo bu ñu xëyee balaa ñu fi bàyyikoo ci samedi bi balaa ñuy départ di dugg ci oto yi ñu amal fa njàngum alxuraan fas yéene noo jàng ñetti kaamil alxuraan benn bi ñu def ko àddiyeey sëriñ Touba bi ci des ñu def ko àddiyeey sëriñ Saalihu bi ci des ñu def ko àddiyeey sëriñ Siidul Muxtaar ñaanal ko mu yàgg fi lool te ànd ak wér suñ fi bàyyikoo dina jaar njaareem ni ko mboole mi daan defee ziar barab bu barab bu ko tedd ki di kër sëriñ bi ñu gën koo xam ci boxaatul mubaarak buñ fa jógee dugg ci jumaa ji def fa ay ziar boole ko njàngum xasida buñ fa bàyyikoo dem Touba suñu àggee Touba fas yéene noo ginnaaw bi ñu ziaree barabu sëriñ bu mag bi ak barab yi nga xamante ni mooy barab bi doomam yi nga xamante ni ña nga fa fas yéene nañ faa amal ab jataay njàngum alxuraan ak njàngum xasida mu yaatu leeral fa it lenn ci maanaam taarixu jumaay Touba ndax ziar bi dañ koo jagleel jumaay Touba buñ fa jógee ba àgg ci barab bi nga xamante ne fa la ñuy xéwloo muy résidence kër Seexul Xadim buñ fa bàyyi ko ànd ak Serigne Cheikh Thioro Mbacke fas yéene jébbali liggéey liggéeyu mbooloo mi Serigne bi bu ko defee niñ ko daan amale ci kanamu Serigne bi yëkkati njàngum xasida boole kook ay kàddu yoo xamanteni serigne Boubacar di jëwriñu mbooloo mi dina ko yëkkati ñu jébalé addiya ji ginaaw buñ fa bayiko nak and ak serigne Cheikh Thioro ak bu mbacké kadior fa lan mbolam mi fas yéenee nañ fa tamit amal fa guddu go xamanteni dañ fay jang jangum alcorane ak jangum khasida waye tatan ay kàddu yoo xamanteni day bayiko ci serigne Cheikh Thioro muy kàddu doliku ak soññee gu àggaat ci mbooloo mi di tasawudu subaan su ko defee jataay boobu yëpp fas nañ koo darajaale maam Cheikh Ibrahima Fall muri dina boo ko defee bu ñu xëyee ci dimanche bi àgg ci barab yi ni ko xamee mooy barab yi nga xamante ni mi ngi Mbàkke Kajoor te du barab yoo xamante ni yu xele ci yoonu murit Eh, bokk na ci eh, barab bi nga xamante ni kooku ku tedd kooku di Cheikh Cheikh Ibra fa joxe woon boppam Serigne Touba ak niki noonu barab bi nga xamante ni Serigne Bara Mbacké di doomu Cheikhul Khadim fala la eh, ñibbee yooyu yëpp di barab yoo xamante ni barab yu taarixa la mbooloo mu fas yéeneen fa àgg dafa joxal fa seen ziar ak i ñaan bu noppee nag amal jataay boo xamante ni jataayu tijjiwaat liggéeyu at mi nga xamante ni moom lañ dëgmal ci njiital Serigne Boubacar mu kàddu yoo xam dina bàyyi ci moom tàbbi ci mboolem mbokki taalibe yi nga xamante ni dañoo aju ci biir Tasawudu Subaan suñ fa bàyyi ko wàññeeku ak si Thiès kon ñu ngi ñaan suñu borom mu defal ndimbal ban àgg ci ak jàmm te lépp luñ fa def rek sëriñ bi nangul nu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf sëñ Alioune ci leeral boo am solo boobu kon ñi ngi fàttali ziar bi nga xam ni moom la daayira Tasawudu Subaan di amal. ñu jàpp ko samedi 8 ak dimanche 9 avril 2017 di ñaar fekkeelu ziar bi ak ñaar di ci woo képp koo xam ni mbàmban nga te bokk ci tasawut subaan di ci soññ cellules yi diggante Dakar ak Kayar ak waa bitim réew ngir ñu ñëw ànd ak ñun liggéey bi nga xam ni dañ koo fas yéenee jébbali Serigne Sidil Muxtaar Mbàkke yàlla na fi yàgg tawér wasalaamaaleykum ورحمة الله تعالى وبركاته حمدي وشكري لمن كل به سارا له ردا دون سخط عند سرسارا لو سنائي وردواني بلا سقط مسقى لي من بني ديمان أنسارا لله كل لدى آبان مكرمة منها ارتحلنا وفيها جم من زارا إن الذين إلى سرسار قد قصدوا زيارتي فارخوا الدارين أو زارا